gisati na kooku nga xam ne mooy jibril moo feeñoo melo woowu al benn waay boo xam ne abu jahil daf ko amee doon bor te nanguwu koo fay mu dox guddi dox bëccëg fayu ko benn bis nag mu ñëw di laaj góori màkk yi ana ku ma ci mën a dimbali ci abu jahil ba mu fay ma sama gëléem gi ma ko jaayoon ñoom daal ñu di ko fontoo fekk yonent baa ngi julli fi toog ni nga ñu ne ko xoolal waajee toog boo demee dana la dimbali ci moom ba mu fay la ndax xam mbañeel gi nekk diggante Abu Jahil ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa ji daal di ñëw ne Muhammad sallallahu man de dañ ma tegtal ndax damaa dem si ñee di leen laaj ndax Abu Jahil daf maa ameel njëgu gëleem boo ba léegi topp naa ci mënu ma fexe ba mu fay ma bi ma dikkee nag di leen ma laaj ku ma ci mën a dimbali ñoom ñu joxañ ma yow mii ne ma ñëw ci yow mu ne ko waaw ñoon dem ñëwee ba àgg na ko mu fëgg buntu kër Abu Jahil rek Abu Jahil daal di daw di ubbi di taxaw mu ne ko fayal kii mu ne ko waaw léegi daal di dem néegam wàññi ko amee loon ba mu mat mu daal di ñëw fay ko bu ko fayee bi waa ji dellu ñu dogale ko fekk dañoo yebaloon ndaw ne ko demal nga ànd ak waa ji ba xam lan mooy xew diggante Omar ibn Hisham ak Muhammad waa ji bi mu dellu seen man de gis naa kéemaan goo xam ne mosuma ko gis muk mukk mukk mukk waa daal bi mu fëggee buntu kër Abu Jahil daf mel ni fitam bi dafa naaw bi mu dikkee ne ko daal fayal kii fi saasi la daal di dellu néegam daal di wàññi xaalis ba mat fay ko ñu daal di dogale al arashi bi woo laaj ko mu nett leen lu mel noonu laaj ko mu nett leen lu mel noonu nga xam ne li ñuy weddi Muhammad lépp ñemewuñ ko seen fit ñemewuñ ko ndax kéemtaan yu bari wane na ko def na bataay loo xam ne lii jaaxal na leen Rukaanat ibnu Hisn mi nga xam ne mbërit la woon moo xam ne ci bëre kenn mos koo mën a daaneel moo mën ñëpp bi ko yonent bi daanelee ñetti jill ndax bi ko yonent bi wooyee ne jëmal ci yàlla ñëwal nga tuub man yonent laa def ne ko ana lu ma mën a tegtal ne yonent nga mu ne ko yow de ko am doole tam ku mën a bëri nga ndax bu nu bu ma la daanee da nga gëm ne kon yonent la mu ne waaw waaw ñëwal ka ñu yonent bi yena ko ba ci kaw dóor ko ci suuf mu ne ko déet faw nu seetaat ko ñëwal nu furli ñu delluwaat mu daanate ko ba muy ñetti yoon mu dal di wàññiku jiital li mu doon sàmm di ko waawaa màkk ne leen yéen daal am ngeen jabarkat boo xam ne su ngeen boo ngeen woo waa bépp ne leen ñëw leen ñu bëre ci njabar yéen ay gañe seen waa ji dal li mu def ma ko waxee bu ko gëm mu def mu ni man de bëri nañu ñetti yoon mu daan ma ñu ne ko loolu mënuñu koo gëm ah mun ko mu it am na de noonu taxul bari taxul ñu nangu wóolu nañ nag bëgg ci li nga xam ne moom lay wax xam nañ ne lu am la ndax Abu Taalib ci boppam dem na ba ne leen lii muy woote kenn ku ne xam nga ne dëgg la léegi daf fekk nag nanguwunoo bàyyi sunu diine maam yi sunu xërëm yi ñuy jaamu sunu jaam yi mu bëgg ne ñoom ñoom a ak suñu sàngara si dafa bëgg a yàq suñu commerce dafa bëgg yàq suñu jaloore maam dafa bëgg a yàq suñu tur loolu tax na du ma nangu loolu waaye nag xam naa ne li wax dëgg la yonent bi bi ñu ko mësee laaj ne ko yow de Abu Talib aar na la ba tàyyi dimbali na la ba tàyyi taxawu na la ndax man ndax jëriñ nga ko dara àllaaxira mu ni waaw waaw fekk naa ko ci biir lëg lëgg lëggi safara yi ma génn ko ba mu dikk ci tepp tepp yi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib di gaañu daf ne ko neel ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur war loolu la àjjana mu ne ko li nga wax gëm naa ne yonentu yàlla nga yàlla la yónni waaye nag mënumaa kocc sama diine maam yi Abdullah ibn Abbas Abbas ci bopp mu ngi toog bi nga xamee ne uh, Abu Talib tontu na loolu yonent bi Abbas nekk li na ne mu gisee tuñu Abu Talib di yëngu mu të dëpp ko noppam ne yonent bi wax na li nga ko waxoon de yonent bi ne ko man de dégguma ko nga xam ne kon sallallahu alayhi wa dégg gi mu ñàkk a dégg gi mu ñàkk a dégg bu fekkee ne Abu Taalib tudd na baat yooyu itam gannaaw yonent bi déggu ko suñu borom nanguwu ko loolu moo ko dugal ci safara ba mu dem ba ca lëgg lëggi safara ya wante taxawu gi mu taxaw woon yonent bi tax na yonent bi jëriñ na ko ndax noqali na ko ci biir lëgg-lëgg safara yooyu ba indi ko ba ci tepp-tepp yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee Abu Talib mu ngi sol dàll yoo xam ne dàlli safara yoo xam ne yuuram a ngi xet ngir tàngaayu dàll yi waaye mbugalam ci tànk yi la yem waral taxaw gi taxaw woon yonent bi waaye faw mu dëkk safara ndax nanguwul yonent gi nga xam ne moom la suñu borom yónni Muhammad sallallahu wa sallam yonent bi alayhi salaatu bi nga xamee ne ñaari at moo tee mu génn màkka di madina beneen xew-xew bu yéeme xew mu di mi'raaj bi wala isra isra ak mi'raaj ñaar yëpp la boole isra bi moo di rañaan gi mu jóge màkka dem al baytul ci guddi gi dellu mu di xew-xew boo xam ne ulama yi am nañ ci ay wax yu xaw a wuute sayyidatuna Aïcha am na nu mu ko nettalee Muawiya ibn Abi Sufyaan am na nu mu ko nettalee sayyidina al-Hasan al-Basri am na nu mu ko nettalee sayyidina Abdullah ibn Mas'ud am na nu mu ko nettalee Ummu Haani mi nga xam ne ci néegam la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon am na nu mu ko nettalee Ummu Haani moom dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam julloon naa nun nun gee maanaam julli guddi mu tëdd bi woo yewoo mu ne nu dem naa baytul muqaddas dem naa asamaan dellu ba am ci olo yu ñenn ñoo xam ne dañ ko bëgg a tuddee ne gént la dañoo hmm? defee ne gént la waaw hmm? bàyyi leen même su su kii la su enregistré wu leen bàyyi leen rek ñu waxtaan lu mën a wan du gént bari na ndax bu fekkonte ne gént la bi yonent bi sallallahu alayhi bi mu xëyee dem ca Kaaba ga wax ko waa Makka kon duñ ko weddi ndax gént moom ku ne mën na ko lu kii maanaam lu ne mën nañ koo gént bu leen ne woon dama koo gént kenn du ko weddi waaye umu umu haani dafa ne bi nga xamee ne Muhammad xëy na salaatu fekk nettali na ma rañaan gi dama téye ci lafu mbubam ne ko bul dem di leen ko nettali muy indeeti fitna mu ne giñ naa ci ki ma yónni ci dëgg ne danaa leen ko nettali yonent bi àggee eh, nettali ko waa Màkka ñu gën koo defati kéemaan muy lu rëy fi ñoom ba nga xam ne am na ñu gëmoon dellu weddi murtat Abubakar biñ ko bëggee reetaan ne ko yow sa waa ji li muy wax ne def na ko nag moom danee na dem na bayt muqaddas dellu si diggante boo xam ne daañu ko dox weer dem dox ko weer dellu si mu dox ko ci guddi gi mu ne yéen da ngeen koy waxal lu mu waxul ñoo ko ma nga nee ca jàkka ja di wax ndax bu ko waxee danga ko gëm mu ne waaw waaw ndax moo di man misaal xabaari asamaan ci diggante xef yi lu bët kon tey bu ma nettalee fii baytul muqaddas danaa ko gëm yonent bi sallallahu bi nga xamee moom la gën a bari ci saxaaba yi ni ko nettalee dañ dafa ne dama doon nelaw ci mbestanam kaaba gi jibril ñëw yëngal mag tànkam ma yeewu jóg xool gisuma dara ma tëddaat mu dellu si yëngal ak tànkam ma yeewu jóg diju xool gisuma dara ma dellu tëddaat mu yëngal ma ak tànkam ma jóg diju mu jàpp ci sama loxo ci sama mëgg ñuy dox ba ma fekk jenn daaba ju weex tàll fas a ko ëpp moo ëpp mbaam mu sax ñaari laaf yoo xam ne ci wetu pooj yi la muy daaba ju rafet ba doy waar mu yéega ma ci daaba ji ba tey loolu wet dina ne du gént gannaaw yëngal na kook tànkam ñett yoon yoon wu ci nekk dafa jóg di ju xool gisul dara ku nekk xam na ne kon waaye doomu aadama yi leen di gën a jaaxal ci mbir yu mel noonu moo di adduna bi nu nekk lim ciy gis moom la ñuy bëgg a def muy lépp bu defee nu def fépp mu mel ne adduna ji alaxira mbiri xay bu lépp nu def ko ne adduna ji adduna ji maanaam li ñuy tuddee le monde des dimensions nga xam ne dafa am lu rëy am lu tuut lu rëy li moo ëpp lu tuut li am lu jege am lu sori am lu gudd am lu gàtt te lenn lu ci nekk du mën a dañ la mu nekk muy àdduna ji nuy dundee nu jàpp nag ne lépp noonu la mel te beneen aalam am na boo xam ne amul yaatu yaatu yi guddaay yeeg sooy yeeg reyaay yeeg tuutaay yi amul dimension masalan loolu moo tax makka ak Quds soriyoo guñ soriyoo bu doom aadama ne dox naa ko ci génn guddi dañuy dellu si nun nin ko mën a doxee ak ni ko nit ñi daan doxee rek ak distance bi nu mu toll ci ay kilomètres ak ni jéego nit demee ci loolu rek lañ koy daal di ndax moom ñu xam loolu moo ñuy réeral ci lu bari ba duñ ko xam. jox na leen yeneen i mandarga yoo xam ne ba tey xamal nañu ne sallallahu alayhi wa sallam bi muy rañaan ci jëmmam la demee bi mu dikkee biñ ko dee laaj lu nu tekkal loolu mu ne leen jëgg ji ma njëkk a yëngu bi nga xam ne moom la euh, buraax bi ma waroon doon yëngu tiital na leen ba seen gëléem rëcc ba réer leen man maa leen ko tegtal ba wax leen fa mu nekk ñu dem jàpp ko ñaareel bi fekk naa beneen dégg yu banu fulaane ni ñu tëdd teg seen ndox ci ndab mu fees dell ñu muur ko ñoom ñëpp ñuy nelaw ma ñëw muuri muuraay bi naan ndox mi muuraat ko fii mu nekk jant bi waa a fenk nii bu ngeen génnee ba ngeen daje jëkk ji jëgg ji ma njëkk a dajeel te seen gëléem réeroon gëléem gu doomu taal moo jiitu ñu ko sëf ñaari saaku benn saaku bi dafa ñuul bi ci des dafa bari ay ay melo maanaam lu bi lu am ay melo melo yu bari laal ñu xonq yu ñuul yu weex ak yooyu bu ngeen leen laajee daañu leen nettali xissa bi ñu daal di njëkkante dem buntu Màkka jamono ji mu ko waxee ñu dal di seen njëg mi ñëw ñu gis gëléem gu doomu taal jiitu suuf ñaari saako yu mel ne yam waxoon ñu laaj jëgg ji ñu ne ko nun day biñ tolloo ci xur sàngam waa di la janaan bi ñuy bartaliku ci Bayda dégg nañ lu ni fii romb ba nu tiit ba gëléem rëcc dégg nañ baatu benn waay mu di ñu tegtal ci gëléem gi nekk naka ñu tàggoom ñooñu njëggum ñaareel mi ñu ak ñoom laaj leen ñu ne akay ah, nun de biñ toll béréb sàngam dox nañ ba sonn nu sippi tëdd nelaw tegoon nañ suñu ndabal ndox lu fees bi nu yeewoo fekk nañ ndox mi dara nekkatu ci waaye muure nañ ko nañ ko muure woon muy caqal yu leer yoo xam ne wane na ne bi sallallahu alayhi wasallam ci jëmmam moo demoon wékki na mbubam sol ko dem ndax naan na ndox tegtal na ay nit dégg nañu baatam jibril yee ko ñetti yoon mu jóg di jujul kenn lépp ko dem ba misaale woon rek mooy tax nu duy soril diggante bi ba di jàpp ne am sax ci ja ulamaaw yenn yi ñu ne gént la woon waaye eh, du woon gént de du woon benn gént waaye lépp bu ñu xamul loolu it war nañoo xam qudratullahi kàttanu suñu boroom amul limite te lu ne man jibril mën na dem ba sidratul muntaha fa la mën a yem mënu koo weesu waaye bu fa bu fa jógee di ñëw fii ci àdduna di indi wax yu buñ ko seetee ci gaawaay bi daanaka ñetti xeet bët lay doon mu ñëw kon distance fii la am waaye am na alam boo xam ne amul distance guddaay ak amu fa gëléem mën na faa jaar ci bën bënu pusa àjjana mën na nekk ci sama ngëbu loxo bi sallallahu alayhi wa sallam bi aaya ji wàccee aaya ji naan wa jannatun arduha samawatu wal ardu wa jannatun arduha ka ardi samaai wal ardi àjjana joo xam ne mu ngi yaatoo ne asamaan yi ak suuf yi ñu boole ko yahud yi ne ko waaw kon fu safaray nekk bu àjjana rek yaatoo ne asamaan ak suuf fu safaray nekk mu leen yéen de yéen a dof bu guddi ñëwee yéen a fu bëccëg di nekk loolu yépp ay yeete la ñu daal di gëm wóolu xam ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee Makka war alburaax ànd ak Jibril dem na Quds ba tey beneen tekkal ci li ma waxoon fekk na fa yonent yépp mu jiite leen julli foofu la gise Ibrahima Moussa ak Isa mu melal leen ñoom ñëpp kenn ku ci nekk na nga mel mu ne ku njool la te xaw a tikk karaw gi xaw a ondulé noonu te muy nit koo xam ne ku njaxlaf la Isa digg bi nit la gàtt la xaw a gën a jege wante dafa yaatu dafa xonq kanamam lu bari ay xarumaam yàlla la soo ko xoolee dafa mel ne ku jóge ci duus bi sangu bay génn bopp bi karaw gi dafa mel ne day toq ndox te toqul ndox karawam dafa tàllalu Ibrahima nag amul benn nit bu ko gën a seen waa ji boppam lay wax amul it benn nit bu mu gën a seen waa ji mu ngi leen bàyyi koom ba mu leen jiitee ba noppi ci Quds fa leen bàyyi waaye teewul mu ngi fekk Adama ci asamaan su njëkk si ni mu fekkee Isa ak Yaxya ci asamaanu ñaareel si fekk fa ci ñetteel bi naka noonu boo muy àgg si juróom-ñaareelu asamaan si fekk fa Ibrahima te bàyyi na leen suuf kon li ñuy wax ak mbirum distance bi ma leen di foofu loolu ba tey ko mu ne ci bàmmeelam muy julli kawtif yépp kon rañaan gi ak bi am na ci ulama ñoo xam ne dañoo defe ne kon euh, mi'raaj bi rañaan gi mooy jóge bi mu jóge Makka ba Quds ñu ne kooku moom kon ci jëmmam la waaye miraaj bi maanaam yéeg bi ci asamaan ba dem ci xasaratul Quds gént la ba tey du benn gént ñoom ñëpp ñoo ndax suñu borom azza wa jalla su ko neexoon mu indi la àjjana fii yonente bi sa alayhi wa sallam kàbbar na waxtu takkusaan ci madinatul munawwara suñu borom won ko àjjana ci miir bi ba mu tàllal loxoom jéggi benn jéego bëgg a wat ci meññet mi mu ne benn doom rek mu ko ci wattoon waa Madina gépp daañ ci màndi daañu te dootuñu marati sallallahu alayhi wa di ko dolli dëgër di ko dolli fonk gi mu ko fonk di ko dolli wóolute ak yokk njàmbaaram ak gën muñ tiis fu mu ko teg moo waraloon mu won ko kéemaan yooyu tax mu rañaane ko ba noppiit jullit ñi muy seet fu seen ngëm toll xam ngeen ne bi mu nee dem naa Quds am na ñu ko toppoon ñu gëmoon te dañoo weddi ndax seen bopp loolu mënu ci dugg waaye ñi gën xam ne seen ngëm dëgëroon na dañoo gën a gëm dañu gën a dëgër ndax dañu ne luñ ko toppee bu ñu xamoon ne moom nu ne yem duñ ko topp dañu gëm ne yonent la gannaaw yonent la nag kattanam mooy kàttanu suñu borom te suñu borom dana tëwu ko ñun lu mu wax gëm nañ ko biñ ci tegee ñaari at la gi am gàddaay gi xam ngeen ne fekk na waa màkkay pexe mu ne fexeel nañ ko yonent bi sallallahu alayhi dañu daan def waxtu woo xamee waxtu aj jot na xam nañ ne nit ñi dañuy jóge fu nekk di ñëw te fu nit ñi bare rek dana fa taxaw ni leen suñ boroom moo ma yónni ci yéen nee na nangam ak nangam te alquran ji yéeme na yéeme goo xam ne fu mu ko jàngee ñu bari tuub waa Màkka nag ragal adduna bi leen wër bépp tuub ñoom rekk ñu des ci te kon xëy na yonent bi dana ànd ak ñooñu ëpp leen doole ñëw nangu Màkka ñuy def waxtu woo xam ne mawsimul xaj ji jege na wala leneen ñu wut ay ndaw yoo xam ne mbedd mu nekk nit def cay taxaw naan leen wattu leen waa ji de benn waaye ngi boo xam ne seytaane la day yàq bopp day def nii day def nii bis nag walid alwalid ibnu muxira woote ni gaa ñi daal waxtu ndaje ngi bëgg a ñëw te xam ngeen ni Muhammad ku sawar la te lamiñam lu leer la te alxuraanam ji muy jàng ak jabar la mën na walbati nit ñëpp dana war bokk benn baat ndax gan ñi ñëw bu ñu laajee kii ne leen mu nangam la kii ne leen Mohamed nii la kii ne te bokkuñuy wax dootuñu ci gëm dara nan dajaloo ba nga xam ne bu ñu ñëw benn kàddu rek ci la ñuy sax ku ñu laaj loolu ngay wax ñu daje ñu ne waaw lu nuy wax ñu ne ah nan ne ab jabar la kaahin la masul ne déedéet bu ne kaahin la duñ ko gëm sax kuhaan yi xam nañ seen saju yi nuroowul ak waxam ji Muhammad di wax ndax li Muhammad di wax du saju du way kéemaan la li ñuy wax ñoom ñoom kuhaan yi dañuy gëmm bu ñuy wax dañuy gëmm wala ñu yor dara di ca xool te li ñuy wax du gudd te day ànd ak ay hum hum yoo xam ne kenn xamul lu mu doon te moom it moom lamiñ wu leer wu set lay waxee bu ñu waxee loolu ñu xam ne du dëgg ñu ne ah dan naan dof la ñu ne yii bu nee dof la bu ñu déggee li muy wax xam ne du dof loolu moom du xalaat ñu ne kon nag xanaa danu naan daal bu newul la ñu ne waykat la bopp shaahir la poète ñu ne yii xam nañu way xam nañ baxaru yépp xam nañ xawaafi ak arab bi xam na nañ ajis yi xam nañ chatre yépp ak seen i atte loolu buñ ko waxee du wéy ñu seet seen xel ba ne daal dañuy wax ne daal dafa amee njabar goo xam ne day teqale diggante ndey ji ak doom ji baay ji ak doom ji ñaari xarit ñi nit ki ak kilifaam te dafa bëgg a tas réew mi nan wax loolu ñu ne waaw nan d'accord ci loolu kon wax ko mbedd mu nekk ñu teg fa nit koo xam ne ko agsi rek fekk na turam siiw na ci àdduna bi ñu naa am na yonent buy woote ñoo rek sax ci loolu waaye nag alquran ñi dégg arab dëgg gis nañu yéeme gu mu yéeme ba nga xam ne nuróowul ak dara te dara nuróowul ak moom waxtu wi alquran di wàcc gaa ñi dàq wax ci ci arab yi gën cee yéeme ëpp ci xam-xam daraja ji ñu toll ci yéemeeg wax ak daraja ji alxuraan toll junni wàccuwaay gi ci diggante bi mu di kéemaan goo xam ne ba léegi doomu aadama yi mën a guñoo tontu loolu lu ko waral tontu li lu yomb la moo di wax yàlla ndax nit mënul def lu kenn nit mënul baaba den nit ki bu defee loo xam ne kenn mënu ko ci ñi mu bokkal jamono yi adduna yàgg na dana wéy ba dana mas a ñoo xam ne daañu mën lópp loolu alxuraan junni at nangami téeméer a ngi nii ba mu wàcceeg léegi benn doomu aadama mënul def benn aaya bu niroog aaya alquran bi nga xamee ne waa Màkka yi gis nañ alquran di tuubloo nit ñi rek di tax nit ñi dugg ci lislaam ba ñu tere ku dégluwati Muhammad suy jàng alquran ku fa dem di ko déglu bu ñu la jàppee daañu la def loo xam ne boo liggéey dootoo ko dolli ñu tere ko waaye moom Muhammad alayhi salaatu wasalaam su guddee rek mu tàmbali def tartiil jàng alquran jàngin wu yéeme wu neex ba doy ko waar boole kéemaanuk alquran gi ak neexaayu baatam ak rafet rafetaayu ni mu koy jànge kenn mënu koo dégg të ñoom dañ ko daan daw ndax ragal ko dañ ko tegoon ak njabar dañ ne day yàq bopp xam ngeen alxuraan ci boppam moom lu raglu la te lu yéeme la lu raglu te lu yéeme la phénomène la bu mel ne jant bi ni mu yéemee di leen rek amul ñaar ci suuf si nu nekk fi nu dëkk alxuraan moo gën a yéeme loolu dafa yéeme ba noppi raglu lu doy waar la ñoom ñooñu nga xam ne ñoo daan tere ku déglu alxuraan guddi sallallahu alayhi tàmbali di tari bu muy tari alwalid ibnu muxira tëdd ñu ne nag nan waat fi nu nekk kenn dootu ñëw di ko déglu ci nun ñeent ñu waat waaye ci ëllëg sa ba mu tàmbalee tey jàng ñu dellu ba muy ñetti yoon ñu soog a dellu nag ci diisal nag mbir mi ba kenn dootu ñëw déglu ko alxuraan di gànnaay gi gën a yéeme di kéemaan nga xam ne ñim tuubloo mooy ñi gën a bari bu niti kaw yi jóge ci àll ba nit yeneen dëkk yi ñuy dégg ne alxuraan yéeme benn bis xabaab ibnul aratta boobu daf daan benn artisan la woon di liggéey ay paaka ay rabbu ak ay fet benn bis nga baax ñëw di waxtaan ak moom toog fi muy liggéey mu ne ko déglu déglu mu déglu طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى mun ah waaye li ngay wax lan la mu ne ko li may wax alquran la alquran ah waaw loolu doon waaw waxaatal ma dégg mu waxaat mu ne de illa waaw foo dégg lii mu ne ko lii dafa am yonent boo xam ne moo indi alquran alxuraan aaya ju bari la aaya yu bari la te lu yéeme la ah kooku di man xam war naa koo gis waaye yóbbu ma ca moom waaye bu ne ko Muhammad wante nag fi mu nekk dañuy nëbboo ndax waa Màkka yépp dañoo taxaw ne rek du fi amee te képp koo xam ne dugg ci diineem ji soo dee doxandim amuloo kenn ku la aar gaañu la rey wala ñu buggal ba loolu doy na waar konoon Abdullah ibnu Mas'ud ba nga xam ne ñoom gannaaw ñi nga xam ne sidna Abubakar bu mu tuubee di ñeenteelu ñi tuub indi juróom ñi ci lislaam ñi ci toppaat yépp mooy ñi demee noonu sidna Abubakar bu mu tuubee moo indi Seydina Ousmane ci yonent bi mu tuub moo indi Abdurahman ibnu Awf Amir ibnul mu tuub moo indi itam Saad ibn Abi Waqaas mu tuub ndax ko dafa amoon alal ba noppi nit ku bari xam-xam la woon koo xam ne kii daf daan ku gént boo ñëwee mu tekki la lu gént gi doon di nit koo xam ne ci commerce am daf daan dem ci dëkk yu bari di xam xabaar yu bari ak nettali yu bari nekkoon nit nit koo xam ne suñu borom daf ko teral bind ko bind bu rafet dox ko kanam gu rafet waa Màkka yi wekk ko fonk ko bi mu tuubee mu yóbbaale mbooloo moo xam ne xam ngeen ne Sidna Ousmane moo ëppoon wërsëg ci saxaaba yépp moom Abdourahman bin Awf ak Sidna Abubakar moomu ñooñu nga xam nag dama ne gannaaw ñeent ñooñu juróom ñooñu Sidna Abubakar indi gannaaw ñeent ñi njëkk a tuub ak ñooñu Sidna Abubakar indi muy li ñuy wax doxandéem yooyu ñoom daanaka ñoo xaw a tuubandoo bi ñu tuubandoo nag lañu tàmbali di mbugal Sidna Bilal ku ñuy wax Umayyatu ibnu Xalaf moo moomoon muy jaamam bi nga xamee ne yóbbu na ko ba ca suuf su tàng si mu futti ko yeew ko tëral ko ci naaj bi ja ba kanamam jàkkaarloog jant bi ne ko fii ngay nekk ba ba ngay dee wala nga génn ci diine Muhammad Sidina Abubakar romb ko bés jënd ko ci moom Umayya ibnu Xalaf euh, seeral prix bi ndax soxare ko Sidina Abubakar jënd ko ba noppi ne ko yaa sa bopp may ko liberté moom itam mu bokkoon ci ñi Sidina Abubakar dugal ci lislaam Seydina Bilal naka noonu Seydina Bilal euh, Seydina Aboubacar jënd na jaam yu bari goreel leen abu xaaf mi nga xam ne moo doon baayam di ko yedd ndax moom booba tuubagul xamul lu dul àdduna naan ko yow nit ñu woyof ñii ngay jënd di leen goreel te nga jënd nit ñu am doole ñu mën a liggéey boo leen jëndee goreel leen boo liggéey si biir ñu mën la jëriñ mu ne ko gis nga ñu lott ñii goreel leen a ëpp tuyaaba ñi nga xam ne amuñu fi mbokk yu leen aar ñu ay doxandeem ñëw fi ñu di leen xor ñoññal ngir seen diine jënd leen mu ëpp tuyaaba naka noonu le sidna Abubakar jënde kon mbooloo mu bari ci ñu demee naan ñu ngi dee al na goreel leen ci lislaam loolu yépp ñu ngi màkka demaguñu madina xam ngeen ne waa madina ni ñu daan ñëwee màkka ci maw mawsim bu nekk ñu njëkk ñëw dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu waxtaan ak ñoom ci mbiri diine ju bees ji te ñoom it daawoon nañ dégg ci yahood ya ñu dëkkal xabaaru yonent bu war a ñëw seen ñeenti yoon ñu tudde ci aqaba yooyu al aqabatu lula aqaba saniya al aqaba salisa ba al aqabatul axira bi ñu fasanteeg moom ba jubóog moom ci mu gàddaay jóge màkk ñëw Madina dëkk ak ñoom bokk ca lañ fasante ñoom ñu di ko aar ni ñuy aare seeni jigéen ak seeni doom ñu fasanteeg moom ci dégg ak topp lu mu leen wax ñu dégg ko lu mu leen sant ñu def ko lu mu leen tere ñu bàyyi ko ñu dellu ci seen réew madinatu mun a war a xamle ne ab yonent feeñ na la nekk Muhammad ibn Abdullahi la tudd alayhi salaatu wasalaam xam le it ne dana ñëw ndax ay nitam yi mu bokkal dañ koo weddi di ko lor di fitnaal ñi mu àndal ñu di ko waajal di ko séenu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi ànd ak moom te néew doole di daw di gàddaay fat ngeen fàttaliku ne demoon nañu Éthiopie Habasha ngir di fa làqu ji ndax ne réew la moo xam ne buur ba ku jubla ku maandu la kenn du tooñ fenn fi moom am ñu gàddaay dem ci yeneen réew bi nga xamee ne nag d'accord nañoo waa Madina ba ñu war a gàddaay di jëm Madina ba tey ci seen néew doole googu ak kàngam maa kàngam yi màkk yi ni ñu leen ëppee doole ak ni ñu bañee lislaam tax kuy gàddaay da ngay nëbbu ñuy nëbbu di dem di nëbbu di dem ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Aboubacar ak ñenn ñoo fi des Sina Aboubacar waxtu bu bëggee dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko muñal yàlla mën na laa wutal àndandoo joo gërëm mu daal def xelam kon toon ci ne xëy na yonent bi lay àndal yonent bi amagul ni mu ñàkkee woon ndigal ci xeex fayu dóor ak ñenn ñoo fi des Sina Aboubacar waxtu bu bëggee dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko muñal yàlla mën na laa wutal àndandoo joo gërëm mu daal def xelam kon ci ne xëy na yonent bi lay àndal yonent bi amagul ni mu ñàkkee woon ndigal ci xeex fayu dóor wala xas wala dara noonu la ñàkkee woon ndigal ci gàddaay génn màkka ak li tiis metti metti metti ba benn bis suñ borom may ko ndigalal mu génn Makka dem nag Madina ca ña nga xam ne ñu ngi yàkkamti ak ñëwam te gëm nañ ko te ñoom ñëpp mànkoo nañu ci benn baat bu ñëwee daañu ko aar ñu ko topp daañu dëgëral diine ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam suba wala ngoon la daan dem kër Aboubacar benn bis mu ñëw ci waxtu bëccëg bi ko Sina Aboubacar séenee dal di gëm ne yonent bi dafa war a gàddaay te kon dafa war a ànd ak moom bi mu dikkee nag xamal ko nekk toog ci lal bi xamal ko ne ko suñ borom may na ma ndigalal tey ma génn dëkk bii dem Madina Seydina Abubakar daal di préparé jënd ñaari gëléemam ñu mu ñu war a war dal di toppatoo lépp li nga xam ne kuy tukki yoon wu sori dana ko aajowoo yonent bi dellu këram fekk na pexe mi ñu mujj fexe ci rey ko xam ngeen ne kenn nit rek ni ma ko waxee woon bu ko reyee moom waa Banu Hashim dañ koy rey gannaaw nag ku ko rey ñu rey la. loolu tax ñu daan wattandi ko ak bi nga xam ne nag Abu Talib ak Khadija nekkatuñ fi banu Hashim ñi ci ëpp ay noonam lañu Abu Lahab moom ma waxoon ni mu noonoo ak moom naka noonu ci biir ñi mu bokkal sax Hashim am na si ñoo xam ne tuur bu ñu dugg yi ci diine ji daañu ko aar waaye am na fu ñuy yem bi koy suñu borom digalee nag ne ko mu génn nag Makka fekk na ñoom seen xalaat bi ñu mujj xalaat mooy nañ seet giiri arab yépp ba ñu daj giir gu ci nekk ñu tànn ca benn waaye bu am doole jox ko jaasi ju ñaw waxtu yonent bi tëddee ba nelaw ñu tiimandoo ko dóorandoo ko benn yoon bu ko defee kenn du mën ne kenn ko rey giir yépp benn waay leen mën a déclarer donc guerre dañuy obligé laaj maanaam euh, fiddiya maanaam euh, jot dee ji ñu saxal pexe moomu fekk bis bi nga xam ne ci la suñu borom digal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko nga dem ma dina ndikkee wax ko sidna Abubakar moom nag ñi gëm diine mag ñi ko gëmul ñépp fekk na ba mu wooteegul diine moom lañ tudde woon al ku wóor ki ku am looy dénkaane moom nga ko daan jox bëggul a dem nag te delloowul seeni boroom liñ ko dénkoon mu dikk ne sidna Ali Ali ibn Abi Talib na nga delloo dénkaan yi yépp na nga tëdd ci lal bi ma daan tëdd nga sàngoo li ma daan sàngoo ba nga xam ne rek buñ ko gisee defe ne moom la Euh, xale yi nga xam ne ñoom la jox gànnaay yooyu ñu war koo rey dajaloo nañu ci seen bërëb di seet ndax nit ñaa ngi dox wala nit ñëpp tëdd nañu buñ dikkee di yër ndax ne Mohammed mbaa génnagul buñ dikkee sekk Aliyun sàngut di ci lalu yonent bi ñu ne ma nga tëdd si sidna Abubakar bi nga xamee ne yonent bi ñëw na ñu war a génn ñu génne buntu càmmooñ dal di bi ñu dem ba ci benn montagne boo xam ne dafa am aw xur maanaam euh, ñu ngi ko tudde xunt xunt mu ñuy tudde xaaru sawr ñu dugg ci biir di nëbbu ndax booba waxtu guddi lañu génn booba nit ñaa ngi reer gaa ñooñu nag bu ñu séeni rek seen àll ñu ne Muhammad a ngi tëdd yonent bi bi muy génnee ci néegam jëm ci kër Abubakrin yàlla daal leen di sol ñoom ñëpp gëmmentu ñu nelaw bi mu dikkee tibb na suuf kenn ku nekk sotti na ko ci sa bopp bi mu ànd ak Abubakar ba dem ba ca xunt ma bi ñu yeewu fekk na fajar jot ñu yeetante ñu ne leen Muhammad jaar na fii ba dem kenn ku ci nekk sotti na suuf ci sa bopp ñu làmb seen bopp gis suuf si ñu daal di gëdd néeg ba bi ñu duggee Alioune daal di jóg ñu xool ko xam ne Alioune la ñu ne ko ana sawaay fu mu dem mu ne leen dem na biig ñu jàpp ko ba mu yàgg ñu ne gannaaw kii doomu Abu Taalib la te du kin soxla woon nañ ko bàyyi ñu bàyyi sidna Alioune mu dem yonent bi alayhi salaatu ne bi mu demee ñii doo nga xam fi mu nekk moog Abu Bakar Abdullah ibnu Abi Bakrin ak euh, sàmm euh, sidna Abu Bakar bi asma bintu abi bakar mooy doom yi sudna abu bakar jigéen ñooñu rek ñoo xam fu mu nekk ñu dugg nag ci xunt moomu ndax waa Màkka ñi ngi wër di seet seen tànk fu ñu jaar ngir jàpp leen indi leen rey leen ñu ne nag dañuy nëbbu foofu ba nga xam ne waa Màkka wër nañu ba dem nañu ba ne rëcc nañu ba seetatuñu kenn ñu soog a génn nag dem ñetti fan ñooñu ñu am foofu Amir ibnu Fuhayra bi nga xam ne mooy sàmm Sidna Abubakar moo daan def waxtu wu ngoon jotee day ànd ak sàmm yi di sàmm ay gàttam bu ñuy ñibbi mu jaar ci xunt mi rattal leen soow jox leen jox leen benn gàtt bu ñuy rey abdullahi ibn abi bakrin moo leen daan indil reer mooy yendu màkk di déglu li ñuy wax ci ñoom ak fexe yi ñuy fexe bu ngoonee mu ñëw nettali leen lépp asma moo leen doon toppatool yóbbul bi nga xam ne buñ génnee ci xont mi jëm Madina moom la ñuy yóbbaale Amir ibnu Fuhayra waxtu waa xamee ne Abdullah ibnu Abi Bakrin ñëw na ci yonent bi Sidna Abubakar ba li leen li waa Màkkay wax buy dellu mu jaarale xaram yi mu doon sàmm ci tànk yi kooku ba duñ gis fi mu jaar bi ñu amee ñetti fan ñu soog a génn nag ci xunt ma fekk na waa Madina ñi ngi leen di yàkkamti di leen déglu am nañu ay fan ci yoon wi jamono ji nga xamee ne jub nañu Madina jant baa ngi fenk ba naaje ba yëkkati ko ca kaw naaj bi tàng benn yahood boo xam ne moo doon felli ay tàndarmaam moo ko njëkk a séen bi nga xam ne dikk nañ ba jub Madina ñu wàcc ci euh, benn keru doj gannaaw nag yonent bi ak euh, Aboubacar li ñu magante bariwul bi ñu waa Madina ñi nga xam ne mosuñu ko gis bi ñëwee xàmmeewuñ leen waaye bi nga xamee ne gis nañ ne naaj bi mu ngi leen di jot si na bu ko jóg fab malaanam di ko muur ci ngir di ko fegal yonent bi naaj bi lañ soog a xàmmee ne kon ki toog mooy yonent bi ñu daal di yi jeexul fitne yi jeexul jàmm ji ñëwagul jóge nañ màkk fi ñu leen daan napptoo di leen mbugal leen def leen naqari waaye fi ñu agsee Madina itam fekk nañ fi ay fitna ak itiis tiis lu tax fekk nañu waa Madina ñaari giiri arab ñoo fi nekkoon muy al aws ak xasraj banu xasraj jubóowu ñoo dëkk bi waaye naka jekk dañuy wujjente ay gàddi yahoot ñoo wër Madina banu Qaynuqa daanaka ci biir Madina la ñu nekk banu Nudayr banu Qurayza ak waa xaybar ak yeneen gàddi yahut yoo xam ne dañoo wër madina su mën a munawara ñooñu dama wax ne li ñuy wax les gens de l'écriture nit yi ahlul kitaab la woon ñooñu bi yonent bi ñëwee te ñëwul feeñul ci ñoom dañoo amoon as naqar waaye ñu xalaat ne gannaaw yonent la bu ñëwee itam te arab yi ñoom jànguñu amuñu xam-xam bu ñëwee itam ñoom lay àndal ñoom lay jiital ndax ñoom ñoo jàngoon téere yu njëkk yi ñoo amoon ay yonent bu ñëwee itam ñoom lay jox mbir yi teg ko ci seen loxo ñoom la koy jox ñu gëm loolu fekk ne beneen situation bu amati moo di waa banul ak banul xasraj demoon nañu ba waa xasraj ñoom ne danoo war a am buur nanu fal buur ba ñu dem ba d'accord ci tànn buur muy Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul boobu diggante bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di agsi Madina fekk na artisan yooyu ñu ngi sisale maanaam ndëpp li nga xam ne mooy ndëppal buur moom la buur di sol ñu ngi koy defal mu xam ne moom moo fa si yéene nekk seen buur waa xasraj ñoom ñëpp a ci d'accord ah waa awsu nag ñoom ñoo gën a bari ñoo ëpp waa xasraj ñoom am nañu xel ñaar ndax nee ñu gannaaw xam na yorante bu ñuy séenu buur yonent ko gën a wóor ndax yonent mooy collaboré ak yàlla suñu borom tabaraka bu ko defee moom mooy xakim moo nuy jiital moo nuy gidee moo nuy atte moo nuy jàngal diine moo nuy xamal yàlla ba noppi dana nu jëriñ li buur di jëriñ waaye banul aw su ñoom kon nekk yonent bi mu ñëw te ñu bañ a fal buur mooy li ëpp doole ci seen xalaat banul xasara ñoom nañu fal Abdullah ibn Ubay ibn Salul waaye bi yonent bi sallallahu alayhi ak sa fekk ñoom ñëpp muy Aws muy Xasraj ñoom ñëpp gëmoon nañu te tuuboon nañu ay jullit lañu ñoom ñëpp ñu jaayoonteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Ubay yu Salul moomu bokkoon na ci naafiq yi naafiq mooy lan mooy nit koo xam ne da nga wax laa ilaha illa muhammadu rasulullah da nga julli da nga woor li jullit ñëpp yi def ñu ngi koy def waaye gëmuloo ci dara ndax boo xamee ne waa dëkk bi ñëpp ay jullit lañu yonent bi taxaw jàmbaar yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ñëpp taxaw doo am fitu feeñal sa bopp nga nekkoon tuub naa nekk jullit ci kaw di yéefar ci suuf ci biir Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul boobu naa fekk la gëmul boole ci jàpp na nekkoon yonent bi ñëw moo fanq nguuram gi mu bëggoon am moom lañu ñu sàkkaloon ndëppal buur ba noppi ba liggéey ko ba mu sotti war koo teg ci boppam war koo toogloo ci chaise bi mu yilif réew mi kii ñëw tax na mu ñàkk loolu mu denc loolu ci xolam waaye yonent bi sallallahu alayhi ci ni nga xam ne noonu la mën a yore adduna xel mi ko suñu borom jox ba mu ñëwee mu bind lii tubaab yi wax le pacte de Médine pacte Médine sallallahu alayhi daf cee dajale lépp loo xam ne mooy àtte ab état maanaam constitution la constitution boo xam ne régir na yahood yi ak jullit ñi ak naafeq yi définir na seeni xaq ak seeni warugar maanaam droit yeeg devoir yi saxal na àtteb bépp xew-xew bu war a xew ak fa ñuy dellu benn muy lu dëgëral communauté bi ñaar mbokkale gi mu mbokkale képp koo xam ne ci waa muhaajiroona yi mooy ñi gàddaaye màkk ànd ak moom mu sàkk kenn koo xam ne daf lay mbokkale moom ngeen raw ñaar ñu mbokk ndey ak baay ci waa Madina bu ko defee tax na waa Màkka ñi jóge seen dëkk ñëw ci dëkku be dëkku jaambur nekkuñu ñu tumuranke nekkuñu doxandéem ndax kenn ku ci nekk yonent bi sàkkal na la mbokk moo xam ne yéen raw ñu bokk ndey ak baay mbool leen ngeen di benn loolu gën a dëgëralati communauté bi boole constitution bi maanaam pacte de Médine bi nga xam ne moom la yonent bi saxal waaye ba tey lépp sottiwul ndax di gis nañ ne yonent benn yonent bi ñu seenu woon ne ci ñoom lay bokk bokkul ci ñoom arab la te ñoom dañoo xeeboon démb bërki démb arab yi ñaareel bi yonent bi ñu jàppoon ne ñoom lay collaboreel ñoom lay jiital ci mbir yi teg yépp ci seen loxo defu ko dafa nekk nit ku mat koo xam ne ñi mu àndaloon démb bërki démb ba jàngal leen ba ñu gën a xam bu amoon ku ñuy teg mbir yi ci loxoom ci ñooñu lay doon waaye tegul ci loxob kenn mbir yi nit xam ne dafa dajoon fépp moom Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo général bi nga xam ne mooy jiite guerre bi te ba sunu jonn yàlla tey plan yi mu tëraloon ci guerre ba léegi mooy yéem ñi nga xam ne ñoo gën a mokkal fànnuk guerre génne ko ci école buñ ko xamee moo doonoon xaadi ji àtte ñëpp ñaar ñu jaamaarloo moo doonoon ilimaan ji jiite bépp mbooloo waxtu wu ñuy julli naka noonu moo doonoon waarekat bi waar moo doonoon mufti bi nga xam ne lépp lu xam ne nit ki xamu ci àtte bi yàlla bu ñëwee moom la koy laaj ba noppi booleeg mu yor këram di ko régler ni nit ñëpp def bi nga xam ne nag yahudi gis nañu loolu benn ñu boole naqar bi nga xam ne yonent bi bokkul ci ñoom moo fi ñëw ñaareel bi nguur gi ñu amoon ci kaw araab yi di leen bëlëfe dañ na ñetteel bi Abdullah ibn Abi Ubay ibn Salul mi nga xam ne mooy ki laxasoog ñoom jaxasoog ñoom war koon na nekk buur nekkatu ko naqar yooyu nag yahud yi boole ko ci seen xol am tuuti lu leen defal moo di ne sallallahu bi mu ñëwee Madina indiwul ndigalal kuy julli jublu Kaaba ga ca Màkka dañuy jublu Quds maanaam al baytul muqaddas Jérusalem te yahood yi looloo doonoon seen bànneex mooy seen cosaanal diine waaye xam ngeen ne yonent bi loolu saxul alquran wàcc digal ko ñu walbatiku ba julli gëm leen fekk ñu ne ca aaya ji wàcc dañoo walbatiku jublu màkka ca kaaba ga loolu itam gën a naqareeti yahood yi yahood yi amuñu lu dul pexe waaye mu ñuy nit ñu yàlla jox xel yu bon yu ñaw di nit ñu ñàng di nit ñoo xam ne itam ñu mën a fexe pexe yu bon lañu di nit ñoo xam ne ñu laa biirul lañu ñu tàmbali nag seeni i pexe di fexeel yonante bi sallallahu alayhi ñu fekk itam ci naafiq yi maanaam ñi nga xam ne dañoo ànd ak jullit ñi te gëmuñu ñooñu it laxasoog ñoom laxasoog ñoom xam ngeen ne noon boo xam ne dafa jaxasoog yow di ànd ak yow ci xare di ànd yow ci jàmm di ànd yow ci julli di ànd yow ci békk yow ci biir jàkka ji fépp fu ngeen toog mu àndak yow loo def mu xam ko te di dem ci sa ay noon di nett li lépp lu doy waar la waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtu woo xamee ne nit wax na ko benn naafeq bu feeñ ne ko rey ko mu ne ko déedéet gannaaw nee na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadan rasulullah du ma ko rey ndax yonent bi suñu borom man yonent bi suñu borom daf maa yónni topp ci nit ñi ba ñu nangoo wax baat boobu bu ñu ko waxee nag musal nañu ci man seen bakkan seen der seen deret seen alal yàlla nag mooy mëngoo seen xisaab mooy seen ëllëg fa mu leen jëmee ak seen bàkkaar kon naafeq yooyu jaxasoo yahudi ñu gis benn bis ñu ñëw ci jàkka ji waxtu guddi yahudi yi dajaloo fa ndax gisuñu benn béréb boo xam ne mën nañ faa daje di fexe seeni pexe te ñu leen fa mu feeñ ñu nekk ba nga xam ne ni jullit ñi julli nañu ba dem ñu dajaloo ci biir jàkka ji jege yow ba sësale seeni bopp di déeyante ñu fekk leen fa génne leen génne gu ñàng ñenn ñi dañoo jàpp seen tànk diri leen ba ci biti ñu bamax leen ñi ñu jàpp seen sikkim ñi ñu jàpp seen loxo buute mbaay leen sànni leen ci biti alxuraan dañul di wàcc di feeñal seeni pexe ak di feeñal seeni jikko ak seeni melo banu Nudayr yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liñ ko fexee rey bari na wante ci Madina banu Nudayr ñoo ko njëkk fexee rey waxtu wu mu ñëwee am ñenn ci saaba yi ñu rey jëmm yoo xam ne waruñu ko woon a rey ñaar lañu woon sax ñu yonent bi war a fay seen dee mu dikk ci giir banu Nudayr ci àndandoo gi ñu ànd ak moom ci jàmm te ci pacte bi ñu saxaloon ci kenn ku ci nekk ku ci am soxla ki ci des taxawle la yonent bi ñëw di leen laaj ndimbal ci dee ñooñu ñu rey fii mu toog ñu daal di yéegal benn waay ca kaw tabax ba jox ko benn moulin maanaam mu toll ne doj la woo xam ne wu la moom la ñuy dëbbee doj wu rëy rëy rëy wu diis waa ji war a ba max doj wi mu barastiku ndànk dal ci kaw boppu yonent bi salaam mi ngi ànd ak Abubakar ak Umar ne ko waa ji di puus doj wi ndànk kenn yëgu ko sallallahu alayhi wa sallam wax yu bi daal di ñëw mu daal di téye ci mbubu Abubakar téye ci mbubu Omar daal di génn daw ndoj wi dal ñoom yëguñu ci woon dara fekk suñu borom a ko ko xamal mu daal di toogaat daal di génn moom dong wax woowul kenn daal di dem Madina bi mu fa yàggee saxaaba yi daal di xalaat ne am na lu xew Abubakar ak Omar ñu ngi noppi na am na pat yowut yi daal di xam ne seen mbir feeñ na ci rey googu ñu ko bëggoon a rey daanu ci dellu si seen ñaareelu pexem rey ñu jóge ci xare ñuy dox jëm si Medina mu guddi guddi gi lëndëm naafiq yooyu ànduñu ak yahud yi ñoom rek ñu daal di takkatoo ci biir dox bi daal ne nanu dajaloo nun ñi ñëpp kaalawu muur sunu karam ba sunu bët rek ay feeñ kenn duñu xàmmee ci lëndëm gi nu dal di tëbal sunuy fas waxtu woo xam ne yoon wi ni mu jaare ci kaw montagne bi bu ñu yéegee ba ca njolaxte la bu ñuy wàcc nu jàppaloo rek riir ak sunuy fas daldi koy wett ci gëléem gi mu war mu barastiku daanu ci doj wi te mu jeex naka ñu dal dajaloo noonu jàppaloo ba dëgër bu ñu dalee di jóg rek wut si ko fekk yonent bi mi ngi ànd ak ñee ñuy wàcc suñu borom dal di koy xamal mbir moomu mu dal di wax waa ji nga xam ne moo gënoon a moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gënoon a xamal mbirum naafeq yi ñu fàttali ñu tuddati dinaa ko xamaat léegi ne ko teqaleel gaa ñi teqaleel ñu teqale leen mu daal di wàññi ko gëléemam bouclier bi mu yoroon di leen ko di ko dóor uh, ci kanamu fas yi fas yi tasaaroo bi ñu xamee ne nag xam nañu seen mbir ñu daal di teqli ko jaxasoo ci nit ñi daal di tekki kaala yi yonent bi daal di koy woo ne ko waaw ndax xam nga leen ñooñu mu ne ko déedéet ndax dañoo lëmas seen kanam yëpp ba seen i bët rek ay feeñ boo léegi lëndëm gi mu ne ko suñu borom xamal na ma kenn ku ci nekk ak sa turu ndey ak sa turu baay bu subaa danaa leen ko wax danaa la ko wax waaye bu ko wax kenn ñu fanaan bi ñu xëyee mu ko wax ko fukki tur ak ñaar ci ñoo nga xam ne ñoo ñoo doon ñiy def loolu le ne ko nag bu ko xamal kenn kenn loolu tax na bi aaya jooju wàccee wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala yi yonent bi suñu borom tere ko kenn ci ñooñee nafiq yooyu bu mu dee ba nga jullee ko wala nga taxaw ci bàmmeelam nga xamee ne def na wax na nu yonent bi suñu borom euh, wax na ko loolu digal ko ndigal loolu waa jooju nga xam ne xamoon na naafiq yooyu nga xam ne ñoo ko doon jéem a rey waxtu wu kenn ci waa Madina wala ñi ko wër dee te demul ca dëj ba rek ñu xam ne kooku ca ci naafiq yooyu la bokkoon ba fukk ak ñaar ñooñu dee ba jeex ku ñu wax dot suur benn yahut la woon yonent bi sallallahu alayhi ci xare yim daan dem xuus ci ndox ba yére yi tooy mu dal di sëweenu ci su mu ko weer suur a ngi yor jaaseem di dox ba ne dajji ci moom yonent bi yorul dara mu xàcc jaasi ji tiimale ko ci bopp yonent bi ne ko Muhammad ana kan moo mën a dox sama diggante yow tey mu ne ko yàlla tiitul raful soppikuwul mel na rek dara xewul ni ko xanaa yàlla fi mu tuddee yàlla rek suur am tiit dugg ko muy lox di lox ba jaasi ji wadd yonente bi sallallahu alayhi wasallam jóg fab jaasi ji xàcc ko ba mu tiim boppam ne ko dox suur ana kan moo mën a moo mën a teqaleeg yow tey mu ne ko kenn mu ne ko baal naa la demal dox suur dal di tuub ci loolu la tuube noonu nga xam ne waa Madina am na ñu gëm ñoo xam ne dañoo jaay seen bakkan ak seen deret ak seen alal yàlla di xare ànd ak yonent bi noonu la amee kon naafiq yooyu nga xam ne fuñ toll ñoo doon fexe fexe yi yawoot yi ñoom itam seen mbir dal di feeñ bi nga xamee banu nudayr def nañu pexe moomu yàlla feeñal ko yonent bi dellu si ñoom ànd ak armée bi ñu daal dugg ci tata yi defe ne mën nañoo mucc yonent bi gaaw leen ay fan bi ñu wàccee ñu dal leen def ijla dàq leen ñu génn dëkk boobu dem wacc fa seeni alal ak seen lépp ba nu xëy wurus lañ daan liggéey ko tëgg ñoom itam ci xew xew boobu ñu defee jigéen ji bokk ci jullit ñi noonu daal di ndëkk yonent bi mu rey leen ñoom itam ñu jóg madina jóg tundoowu lépp ba nu xoree moom ñoom ci xaswatul asab la ñu wooree woon la ñu signé woon teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ñoom it ñu daal leen di jàpp rey ñi ci gën a bari ci des ñu jàpp leen jaam ba nga xam ne xaybar yeneen gàddi yahut yu néew ñoo des xaybar itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jógee taif la ko conquérir waaye xam ngeen loolu lépp li ko jiitu mooy rek xare badar ngeen ne badar jullit ñi bari wuñu woon ñetti téeméer lañu woon yéefar yi doon daanaka junni waaye ñoom la yàlla jox ndam li Uhud da ca topp Uhud moom metti woon na lool ci jullit ñi dañu leen a gañe jëf leen jëf ju metti jamono yooyu Xaalid ibnul mu ngi woon ci biir yéefar yooyu doon xare waaye weddi gi ñu weddi woon ndigalal yonent bi ak alali adduna ji jengoon jëm tax na suñu borom nattu leen ba ñu gañe leen oxut ngañaay lu metti waaye ba tey teewul seen ngëm gu dëgër googu suñu borom wane na ko ndax waxtu nga xamee ne jóge nañu oxut da ngay gis koo xam ne dafa ànd ak mbokkam mbokk mi ñu jam ko gaañ ko ba mënatu la dox waaye bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne nañu wàññiku ndax yéefari màkka li ñu nu defoon ci Uhud doyu leen ba wàññikuwaat nañu jëm si Madina ngir nee ñu faagaagal ñi des si jullit ñi mboolem ñooñu ñu doon boot dañoo wàññikuwaat ci xeex bi ngir jaay seen bakkan yàlla nga xam ne kon ñun seen ngëm gi dëgër na dëgër goo xam ne dara mënu ko delloo gannaaw bi nga xamee ne nag gannaaw xeexu Uhud la ubbeeguñu màkk fatxu màkk ñëwagul gis na sax yooyu wa Xaalid ibnu Walid ak Omar ibnul Aas tub ni nga xamee ne noonu la tub Seydina Omar kéemaane woon ñoom itam noonu la seen yéeme woon ndax Omar ibnul Aas toog na benn béréb ba mu yàgg mu dajale nit ñi nga xam ne ñoom moom bokk xalaat mu ne leen noo ngi toog rek dellu si wunu sum xel waa jiikat mbiram mu ngi gën a yëkkati ko rek te muy gën a am doole rek dañuy toog fii bis ba mu dikk ak armée bu xëjul fenn yeew nu nun waa Màkka man kat lii sama xalaat mooy nanu dem Éthiopie làqu fa bu fekkente ne Mohammed not na waa makka nu toog foofa des fa bu fekkee ne arab yi not nañ ko nu dellu si fi nu dëkk ñooñu itam bokk ak ñoom xalaat dal na ko waaw nan dem ñun nag kon gannaaw dañuy dem ni gis moo fa nekk a an najashi nanu seet luñ ko yóbbul ay cadeau yuñ ko mayaale ñu ne lu mu gënoon bëgg ñu ne der la gënoon a bëgg ci lu jóge ci suñu réew mi ñu dajale seen der yu bari wulli ko ba mu rafet bari lool ñu daal di dem Éthiopie bi ñu demee Omar ibn As mooy ki jiite yoon wi ñu àggee parce que am na benn waaye bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni woon ci Négus Négus nasaraan la woon boo xam ne maanaam chrétien boo xam ne dafa jàngoon évangile bu baax ak bible bi yëpp nouveau testament ak ancien testament lépp la jàngoon nekkoon nit ko dégg diine ji bi mu déggee yonent bi itam dégg alquran dafa nangu ak yonentam bi nga xam ne nag Omar ibn al-As ak ñi mu àndal ñëw nañu gis waa jooju yonent bi yónni woon mu génne fi Omar ibn al-As ne kii de diwa Muhammad a ko yónni xam nga nu may defa damay dem ci najaas yi waxtaan moom ñaan ko ko mu may ma ko ma rey ko daal di dem ci Najaasi waxtaan ak moom jox ko lim ko indil ba mu bég mu ne ko gis naa léegi waa ju fi génne ki ko yónni sunu noon la boo xam ne teqale na yàq na sunu réew ma teqale na diggante baay bu nekk doomam teqale na diggante ndey doomam jaam ak boroomam jaxase na dëkk ba liñ doon def suñu diine maam yépp a ayibal ne ko dama bëgg nga may ma waajooju ma rey ko noonu Négus dal di talaata boppam ba mu Omar ibnu As tiit defe na ba bakkanu sax waa ji toj na nee na bu suuf si xotti ko xaroon ma dugg ci ndax tiit nee na Najaasi ne ma jëmm joo xam ne naa an naa muusul akbar mi daan dikkal Muusaa koy dikkal nga di ma sant ma rey ndawam yow de li gën a bon ci àdduna nga ma sant mu ne ko ah noonu laa mu ne ko waawaaw mu ne ko ah, yonent la mu ne ko bu wér a wér a wér yonent bu wér la topp ko boo bëggee sa jàmm adduna ak alaxira topp ko mu ne ko gannaaw noon la kon yow taxawal ko fii ci taxawaayam ma ba ma jaayoonteeg yow léegi bala may bala may gis Muhammad Najaasi daal di tàllal loxoom Amar ibnul Aas jaayoonteeg moom ci lislaam dellu si fekk si moroom yi mu àndaloon waaye xamalu leen ci dara nëbb na leen lépp ñu ne nan dellu daal léegi nan dellu Makka ndax am na xew-xew bu xew ci diggante bi sunu gannaaw bi ñu dellu see Makka bi ñu daan am ak si dajante Xaalid ibnu Waliid muy génne Makka. la yëkkati mu ne li ma yëkkati de mbir la jëm nga ne lu am mu ne ko li am lu mu doon mu ne ko mbir mu leer a leer mbir munu lëntoon loo xam ne bu ku mu lëntoon leer na tey mu ne ko lu mu doon mu ne yëngu ne yonent bi waa ji la de yëngu ne waa ji yonent la mu ne ko bu wéer man xam naa ko mu ne kon nag nan dem tuubi mu ne ko loolu doo nga ma yëkkati fii jógewuma suma fa ma nekkoon lu dul ngir tuubi mu ne kon nag nan ànd dem xam ne kon Xaalid ibnul Walid dafa seetlu mbirum Muhammad sallallahu mu nekkoon benn waay dong àndul ak kenn amewul alal du doom buur nekkul nit ku wër àdduna jële ci xam-xam wala mu jàng nekkoon benn waay bu ñu xamoon rek dëkk ci Makka daanaka mosu koo génn lu bari xëy woote lenn àdduna bépp taxaw ne du fi amee fu ñu ko fexee la pexe ma dañ di gën a màgg mu wóor ko ne kii mbiram day yëkkati ko rek te du daanu mu seet lu ko seetantal ko xam ne kii daal li mu woote dëgg la mu dal di jóg moom Xaalid ibnu Waliid ne kon nag gannaaw leer na ma léegi ne yonent la li ma daan def lépp dama koo gëmul woon waaye léegi leer na ma du ma def lu dul toppi ko te Omar ibnu Aas moom it boobu mu jógee ci Néguse am na lu ko wóor moom it ne waa ji daal yonent la